Famara Kalbert Mané maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay bu voilà nga nekk maire bu commune de Simbani Balante. Euh, uh-huh. njiitu réewu Sénégal euh, dina ñëw ci région wu Sédhiou 27 février jàpp 3 uh-huh. mars. Euh, naka nga uh-huh. gisee visite président bi foofu ca Sédhiou. loolu xam naa di sant yàlla bu baax a baax di gërëm président. moom mi nga xamante ne moom moo de décision pour ñëw Casamance ñoo def conseil régional conseil présidentiel régional développement conseil des ministres localisé déjà loolu rek vraiment population no gis ko ñuy def conseil des ministres la loolu lu am solo la dafay gën a encourager nit yi dafay gën a jox gëdd nit yi quoi je pense que le président vraiment euh, li mu def noonu ah ñun de place ñu nekk biir Sédhiou kontaan na te vraiment dañ ko teeru teeru teeru bu rafet loolu nekk teeru bu xamante musul am d' accord kon yéen a koy préparé bu baax daal gis ngeen ni lu ne mel ah, xam nga xam nga ñoo présent déjà ñoo présent loolu lu am solo la ñu présent la mhm. donc euh, yéen waa Passab dama leen koy ko gën a soxla ñun ñoo ko gën a soxla ah. donc ñoom si bon vraiment ñu ngi sant comme ñu ko waxee parce que mu ngi ñëw époque boo xam ne dañuy dañ am seen soxla te soxla yi moom la parce que moom suñu dina nekk ay décisions yi nga xamante ne dina def pour que yeneen soxla yi nga xamante ne moom mooy suñu soxla. Mhm. comme à l'image euh, xam nga président président bi dafa nekk nit ku nit nit nit nit ku am yërmande. Mhm. président dafa tabax pont Marsassoum. Mhm. dafa tabax hôpital bu rafet. ñu ngi doon tabax boucle du Budé ak boucle Pakao mais bu ko defee léegi lan moo des ci région de Sédhiou mooy désenclavement bi mooy defar pont Téeméenti xam nga ne bu pont bi buñ ko defaree ñu nekk Guinée Bissau dootuñu jaar par Ziguinchor. population yi yooyu da ngay jël si dem doo ko mën nga jaar par Sédhiou doo ko jaar par Ziguinchor donc dina tax même suñu hôpital bi nekk fi dinañ ko fréquenté parce que hôpital régional la donc ñu ne ci biir région foofu la ñu war a dem te moo tax ni dafa am solo dina ñëw aussi ci département de Goudomp il faut mu ñëw département de Goudomp ñu ñëw xool Témento parce que Témento fii ñëpp d'accord société civile euh, kilifa diine ñëpp kuy kuy def compté ngeen toog loolu mooy attendre bu population li mu boobu loolu ngay topp te président la comprendre loolu la comprendre am na yeneen yeneen besoin yi nga xam ne dañ ko tënk ci ci ci document bi ma plan d'investissement triennal wax moo ko moo ko piloté te incha allah bu ñëwee loolu koy présenté mooy soxla région yi te soxla région lépp la ñu jël en compte bàyyi ñu dara bàyyi ñu infrastructure yi bàyyi ñu yoon yi bàyyi ñu santé dara dara dara dara lépp lépp lañ jël affaire question abri provisoire lépp la ñu jël en compte donc présent dañ koy def présentation moom mooy lii mooy ñu dégager priorité bi te ci priorité boobu moom la ne moom mooy suñu attente donc xam naa ne dina ko dina dina jël ay décision lu am solo pour que si priorité boobu ñu mën ko commencer bu gaaw mmh. léegi euh, Famara. yan jafe-jafe euh, ngeen di jànkonteel foofulee ca Simbandi Balante mm-hmm. seen i jafe-jafe lan la exact oh, xam nga jafe-jafe moom du du sax parce que chaque fois comme li problème bala chaque fois je fais quelque chose j'ai envie de faire plus et mieux donc di nga def yii nga régler yii am beneen problème gën na fee et cetera comme commune si Malmi comme lu mag la ci région bi vraiment am nañu ay difficultés bi nga xamante ne difficulté bu parce que xam naa ne fii ak fin mars vraiment PUDC dina pare liggéey bi quoi ci wàllu courant bi. ñooñu ñuy defar vraiment vingt de villages par liggéey moo parewul te xam naa loolu am solo te président Wade ñu ko interpellé ci loolu ay assurance xëy nañu ñëw euh, soit après bi kamoon problème entreprise vraiment donc émission centrale bi gën a àdduna loolu moo tàddoon affaire yi quoi mais li ci ndox bi quoi ndox bi léegi ay branchement lañ dem raccordement la moo des quoi diggante village ak village yi donc forage euh, si Mali ba pare na vraiment ñu ngi presque à quatre vingt dix pour cent ci branchement eau nga xam te amuñu ndox moom bari ñoo am na seen ñoom seen soxla moo nekk ci robinet bi rek mais li moom ñëpp am nañ parce que robinet boo demee aussi zone Safaan euh, bi forage Safaan bi forage pare na léegi réception rek la ñuy la ñuy xaar monté nañ chaque activité bi comité de pilotage du forage donc forage yooyu euh, dañuy organiser jeunes autour du forage ñu créé benn société de gestion du forage dans la dans la commune te mairie leen accompagner ci wàllu panne bi et cetera donc tout ça c' c' est sous l'aide du président Macky mais il faudrait que mu mu mu renforcer loolu pour que ñu am vraiment une maison un robinet une maison un robinet et loolu mooy suñu suñu suñu objectif bi beneen objectif bi mooy ñoo ngi xeex pour vraiment euh, ñoo ngi xeex euh, abri provisoire yi xam ngeen ni abri provisoire dañoo bëri ci trop quoi mais léegi ñoo ngi sant yàlla parce que li ci des li ci des moom bëriwul def nañ saa saafara clé amee forage euh, du moins sain bi su ma ne clé amee sain bi te collège bi commune moom moo ëpp collège ci ci région bi. sept collège lañu am ci biir région ci biir commune bi ak benn lycée ñoo ngi trente écoles élémentaires trois postes de santé ak sept cases des tout petits sans compter les cases de santé donc def nañ nañ ay efforts yu mag ci wàllu boobu donc li ci des relever niveau plateau technique yi relever encore euh, en fait le niveau d' accès d' eau et d' électricité aux populations loolu rek moo ñu def en defal nañu un piste peut être ay entretien de piste moo de ñoo ngi sant parce que surtout xewu ndaw yi ñun dañ ko soxla loolu xewu ndaw yi ko soxla parce que ci zone frontalière balaa gos yi ñuy dem fële ay ay Espagne voilà donc loolu moom bu ñu xewu ndaw amee par exemple loolu mun nañu accompagner mun nañu accompagner ci wàllu formation bi parce xam ne produits kaju te bu ñu ne kaju moom vraiment am na produit bari yoo xam koy génne moo tax il faut ñu def ay formation en gestion des jeunes pour ñu am ay unité vraiment jigéen ñi aussi ay jàmbaar lañu accompagner leen ah euh, ci wàllu donc allègement des travaux de la femme ci ci toolu faro yi pour ñu accompagner te loolu président de la république xam ne incha allah rabi dina jël en compte préoccupation femmes yi pour que la femme bi nga xam te moo nekk ci biir commune bi mu bañ am jaaxle mu bañ a nekk fii di di wóor wóor alors que vraiment euh, moom jàmbaar la te loolu moo tax vraiment dama la ne tout au début te biir présidence bi vraiment li nekk ci biir moom ci ci ci ci wàllu wotam bi ah, vraiment mënu ma la voilà euh, monsieur Mané am na ñu jàpp ni visite président bi foofu ca Sédhiou comme ni mu jógee mhm. Thiès ainsi de suite campagne la mhm. rek dafay préparer élection présidentielle euh, bu 2024 mhm. yow est-ce que loolu nga gis wala gisoo loolu maanaam xam nga Sénégal euh, ñu ngi sant yàlla bu baax xam nga ñun tradition bu am yeneen réew mi amuñu ko beneen bu ñu amee aussi bu classe Sénégal jamono Senghor Senghor daan def ay tournée boo déggee da ngay kontaan gis ko da ngay kontaan ah kii ñun bu ñu nekkoon xale dañ daan daw ma nga école jël drapeau yi di ko e ay c'est ça le Sénégal ah Abdou Diouf noonu la aussi def na ko ah Abdoulaye Wade noonu la def na ko Abdou Diouf nekkul woon moom parti mais saa bu ñu nekkee par exemple day ñëw ñëppay génn Abdoulaye Wade c'était la même chose ci moom laa bokkoon mais saa bu ñu ñëwee ñëppay génn kenn xam kii mooy kan loolu mooy Sénégal loolu mooy Sénégal lii même sax bu doon biir président baax na sax mais li gën a am importance moom tey jii ko jox. waaw ñoo pour conseil régional de kii dinañu ay inauguré amul politique. mais président li mu liggéey ba mu xam nga mooy gën a ko am je ne sais pas pourquoi ñu ne wala affaire politique. Euh, beneen laaj euh, monsieur Mané euh, troisième candidature bu Macky yow noo ko gisee d'accord nga si waaw wala déet. non xam nga candidature bi xam nga ñun ne souvent intellectuel ak jeunes yi moo moo moo ñooñu sonn Sénégalais quoi vraiment boo duggee ci milieu intellectuel bi dafa am benn fonction boo demee ci yeneen milieu c'est pas le même débat li gën a am importance mooy c'est un Sénégalais qui a droit à une candidature je pense que cette question là est déjà réglée donc euh, président bi moom moo koy moom dina jël bu dee décision man man moom personnellement dinaa ko accompagner ci wàllu boobu dinaa ko accompagner accompagner pour que mu mën a am loolu loolu moo am solo quoi ay troisième candidature c'est pas tellement tricky mais loolu am solo mooy quand même euh, c'est c'est c'est les décisions c'est la décision que lui-même il va prendre et nous en sommes très conscients que vraiment c'est c'est une très bonne chose pour lui vraiment de se présenter ah oui euh, léegi euh, jàmm ca Casamance est-ce que mën nañu wax ni fi ñu toll nii euh, mbir yi mi ngi waat ci tekk tekkaaral au au sud du pays foofu ca Casamance Ziguinchor. waaw ah, je pense que jàmm ci Casamance quand même il faut ñu santel la ba parce que léegi nit yaa ngi dem seen di ramasser seen kaddu yi di for kaddu yi yaa ngi nekk ne bi sax dama bëgg ñëw vraiment dañu am Euh, loolu vraiment lu am solo la quoi euh, ñu ngi sant nguur Sénégal ak képp bi nga xamante ne ak société bi nga xamante ne jógee na loolu lu am solo loolu il faut ñu ko ñu xam ne ci Sénégal ñëpp ñëpp ko xam quoi donc euh, affaire bi moo loolu mooy loolu moom arrangewul kenn ndax ñi nga xamante ne ñoo ngi ci biir lañu arrangewul leen donc foo ñu la paix man aussi ma maa ngi liggéey ci la parce man ambassadeur de paix après boobu dañ ko war a benn kër ci biir dëkk bi mu mu ma mu ne à partir de territoire que ñoom pour la paix donc aujourd'hui il faut que ñun ñu a góorgóorlu pour que mu gën a gën a mu gën a am euh, vraiment euh, voilà beneen laaj bu mujj mooy lan la la Ousmane Sonko di inspiré njiitu euh, région Ziguinchor maire bu Ziguinchor. non xëy na man en fait man kooku sax ma ko wax dama ko dama koy dégg damay dégg turam nii ci rajo voilà li li ma gis euh, ci ci réseaux sociaux mais xaw ma ko ah xaw ma ko franchement amante wuñu euh, milante wuñu donc euh, mun ma wax dara ci moom parce que franchement du ma nekk di wax loo xamante ne ci ay doomu amour la non ça je loolu du ma ko kii mais amul benn affecté aussi ki ma am affecté mooy ancien maire Balde. kooku hmm. daan nañoo simbandi daan nañu am ay relation yu baax ci daan na jàppale population yi loolu kooku xam naa ko ci loolu quoi. d'accord xamoo daal Ousmane Sonko. non non pas du tout pas du tout xamante wu mosuma ko gis aussi physiquement quoi voilà. voilà Famara Kalbert Mané Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. merci beaucoup merci waa Rewmi maa ngi leen di gërëm euh, vraiment tout le personnel les journalistes là. Hmm. Euh, li ñu war a retenir mooy euh, lu am solo rek parce que boobu message boo xam ne dama koy lancer rek. vraiment ñun ñu nekk Sénégal moom foo ñu jàppalante baax a baax ñu góorgóorlu pour que Sénégal gën a jëm kanam quoi. te xam naa ne yéen ci fii ci tànk Mm. maa a baax. ñu lay remercier may fàttali yow yaay maire bu Simbani ah, Balante ah. nekk foofule ci région bu Sédhiou ah, ñu lay remercier bu baax baax.